mbégte bu yaatoo yaatu la ñuy am am internet Dakar net nuyu nañu leen di leen wax ngeen wéy di abonné ci seen site bu mag bile di Dakar net soo leen na daal di bës cloche de notification bi ngir ngeen di mën a am suñuy vidéo en temps xibaar yi nag dañuy koy topp ak ki nga xamante ne mooy Fatima Dione Miss Sénégal 2020 ak Aminata Badiane présidente bi moom nag ginnaaw coolu rëy loolu nga xamante ni moo dox ci seen diggante jamono ji ñuy nekk nag ñu ngi xamal ki nga xamante ni mooy Aminata Badiane daal dinay dem porter plainte rek moom nag. ña mu porté plainte du ñenn ko dul ñi nga xamante ni ñu ngi live ci Instagram yi di wax li nga xamante ni wala di teg ci ndoddam loo xamante ni jaaduwut moom noonu la ko gisee ba tax na ki nga xamante ni mooy Mamiko la femme chic ak Birame Diagne mu maîtresse d'un homme ki nga xamante ni nag mooy Aminata Badiane présidente bi moom ak ay avocat am xëy nañ daal di dem ci justice rek daal di porté plainte ñoom ñooñu le mu mel ni nag jur na wax coow lu rëy a rëy ndax jamono ji ñu toll nii rek dem nañu sax bay def hashtag Mamiko moom nag ñu ak ay jegal ñaaleem ñi nga xamante nii rek ñoo bokk ci femme chic ñu ngi koy jàppale bu baax a baax loolu la leen indiroon ci information yi di leen wax que ni rek ngeen wéy dañu topp ci dakaar Net.